ba tey baaxul. waaw exemple boobu baaxul exemple baaxul boobu moom Abdoulaye Seydou Sow moo teg tànk biir biir man li ma li ma li may prôné te te te ma te ma te ma wax ko te ma mun koo wax aussi te ma am droit wax ko en tant que militant du parti parce que maa ngi bëgg a yàgg ci parti mooy que ni d'abord benn je confirme ce que. nous avons toujours dit depuis le début xam nga nous nous sommes très loyaux et nous sommes très loyaux au président de la république boo xam ne ni moom la réew mi fal mënoon na ko def comme bu Ablaye Wade di ko ne ñu ñoo fal na ñu mais man lañu fal mais do mais dama lay expliquer rek xam nga il faut ma am il faut ma am trame xam nga il faut mu expliquer donc loolu loolu ñu boolee ñu ànd ak moom dans la loyauté ànd ak moom ba tey et nous on reconnaît que moom mooy président de la coalition <laughs> parti socialiste confirmé ni yéen ñu tër leen ngeen confirmé que ni non leen a cër ngeen toog dañoo def 12 ans de galère traversé désert ñu cër leen gars yi ñu nekk loyauté boobu loyauté boobu moo tax ñu ne jamais dans l'histoire jamais dans l'histoire Sénégal nga am coalition bu bu bu durée nii loyauté boobu moo tax parce que soo nekkee ci mbir da ngay nekk ci mbir carrément wu soo ci mënul nekk nga génn dem sa yoon. Mm-hmm. naa ci loolu. Mm-hmm. benn benn bi wala problème jub mooy que ni man may li ma wax sànq mooy waxtaan boo xam ne ci instance parti bi dafa pareegul parce que daf nañu secrétaire parce que xam nga président dafa ñu bett. président dafa bett ñëpp. di la mooy dëgg dafa créé nouvelle donne. bu bees tàq boo xam ne ni ku parti bu nekk dafa war a évaluer mm-hmm. parce que président dematul su nekkoon président mooy dem. peut-être que waxtaan bi dina gën a yomb. contexte dafa changé. mais avec la nouvelle donne bu mu créé mais parti yi am nañu droit évaluer bu mu waxee le 3 ñun le 6 on s'est réunis le 6 ba ñu réunir dañ ko féliciter ba pare confirmer notre ancrage dans le Benno Bokk Yaakaar te loolu defoon nañ ko depuis le mois de février mais lu ci des mooy instance yi waxtaan continuer waxtaan bi. mais instance bi secrétaire exécutif moo waxtaan mais bu mu waxtaanee. nit ñi di yàkkamti di génn di wax joxe nañ carte blanche jox nañ alors dañ ne euh, euh, notre présidente dama la waxtaan ak président soo demee waxtaan ak président soo dellu soité ñu convoqué bureau politique man awma ci lii wala ci lële nañu convoqué bureau politique respecter règles ah, dañuy wax ni dafa joxe délai. dimanche lay wax du wax dimanche. président leen kan mooy seen candidat. xoolal instant yi pareegu leen. waaw mais mais mais question xam nga actuellement ni kenn parewul ñëpp dañu am yaakaar ni yaakaar ni xoolal nous tous nous avons mois wala huit mois. amul benn kàngam boo xam ne nii am na am waaw amul benn kàngam boo xam ne pare na. daanaka benn boo ko yaakaar on est tous sur la même ligne de li ma wax mooy comme dañu bokk bennoo nañu nañu nañu nañu waxtaan président même su nekkee mooy dogal parce que ñu ne dañu ne ñenn ñi dañu ko jox kàddu carte blanche mais ñun nañu ouvrir boole ci générosité. wala ci solidarité parce que dans le parti socialiste nous avons quand même des profils. Hmm. Ah oui. Serigne Mbaye Thiam. maa ngi doon dégg li lu ñu wax Serigne Mbaye Thiam. Ah oui parce que non ah, parce que non mais parce quelqu'un qui a été dans le gouvernement. depuis parce que depuis depuis le doyen du gouvernement. depuis mais xam nga bëgguma je veux pas insulter les autres camarades parce que su ma waxee noonu bon c'est vrai que man tout le monde sait que moi je je Serigne Mbaye Thiam mais bien sûr mais loolu mais loolu à ce moment c'est un débat qui doit avoir à l'interne du parti parce que dañu waxoon ni ci séminaire bi on confirme notre ancrage mais deuxièmement mooy affaire candidature dañu ko waxtaanee ci biir parti bi mais loolu lañ toll te pareegul parce qu'il y a des camarades parce qu'il y a des camarades il a ce parti là yoo xam ne dañ dañ gëm ni parti dafa war a am candidat. waaw te ba ci débat ko wax parce que génn na wax moom ci biir débat bi dafa wax ni parti socialiste dafa war a am candidat te du moom cote. oui am am ñu wax ni dañu wax dañu wax ni. parti dafa am candidature dafa war a bokk candidat à ñu néew ñoo wax ni dañuy jox carte blanche Aminata. parce que moom mu ngi mu ngi mais génnul parti ah, socialiste. waaw problème. Ah, parce que parce ma ne foofu xalaat lii ba di nangu lee. mais yéen xalaatagule. genre moom dafa jël ay initiative am je dis xalaat dans le que man mënu ma ñaawlu wala d'accorduma ci démarche bi ñuy adopté. te jàpp naa ne démarche boobu suñ ko demee dem xam nga dem il faut ngeen dékkuwaat bande yi ma la wax dem dama ne suñ continuer nii on risque d'avoir des problèmes. yéen kay yéen xam nga dem wax naa donc damay araftu parce que y a des camarades yoo xam ne dañu jàpp ni même suñu amee benn su amee candidat unique ba parti social joxe sax kàddoom du ñu woteel benn candidat boobu. Mm-hmm. mais donc li gën mooy bu ñu escamoté discussion yi nañ ko nañ ko jaarale ci yoon. ñu waxtaanee su parti bi ne yoon bii la ñëpp tënk ci yoon boobu parce que su ko parti bi waxul Jean Baptiste lu mu def nii man dama koy ñaawlu sama xarit la. sama la. Ah. parce que moom moom nee na am moom nee ci réunion bi dañoo am candidat mais na xaar ba ñu processus bi yegg. mais décidé wu leen demul leen du mais écoutez Jean Baptiste. bu amee problème tamit même suñ demul même suñ demul mais war am nañu droit candidat la candidat. da ngeen waxoon ni dañuy am candidat en 2024 nga tey xam nga tey xam

foofu la candidat war a génne. fo foofu mais mais doo dee kenn kenn kenn du siyee branche wala kenn kenn du rey sa bopp. Mm-hmm. du dëgg mais nag rafet na que ñu bokk coalition bi mais mu am ay candidats yu jógee AFP am jógee feneen jógee feneen ñu ne ko président candidat yu bëgg nii décider loolu mën a nekk. pour pour la pérennité de Benno Bokk.